asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV daleen si jàmm si kër gi su ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru bés bi ngeen ànd ak Tunkara ci bopp xibaar yi mbokk yi bu njëkk fële ca màkkaan bi nga ne nee nañu foofu la ñuy tabaxee la ñuy sànne ci di mbalit yi ñuy jëlee ci lopitaan yi mu nekkoon place boo xam ne nag former président Jammeh moo moom ay njaaxare nga xam ne askan bi ñu koy wax ci li jëm ci wàllu dund bi ci réew mi moo koy benn tey euh, fi euh, Savilla association nekk fële ca Bundung ñoom nag euh, si samedi bi weesu dañoo préparé ay ndogu ba pare daal di koy àggee ay nit ñi nga xam ne jàpp ne ay néew doole ñu nekk nag seen i gox bi nag pour ñu nag daal di seen ndogo ñu daal di jàppale seen bopp nag ci wéru koor bii ñu ne. xibaar bi bitti réew dinañ dem seeti ci fële ca lii di caat caat nag fu mu toll nii tey ji dañoo yeewoo ak mer ak naxar. ndax nag seen i président bi doon seen i kilifa réew mi moom kii di président Idrissa Déby ñu ne kooku nag moo daal di maanaam génn na àddina ci xeex bi nga xam ne nag mu ngi doon seen i diggante militaires yi ak ki nga xam nag moom mooy li di rebelle yi euh, fële nag ca Mozambique lu mat ñeent fukki junne ci ay nit ñoom ñoo génne seen kër yi daw dem wuti ji fa ñuy am ci biir boobu rawatina ci benn dëkk bi ñu euh, Palma Matana ñu bëri nag ñàkk seen bakkan boobu ba léegi mbokk yi ak yeneen xibaar daal si jamono ñu ànd ak yéen mbokk yi dal leen si jàmm minister of health euh, docteur Amadou Lamine Samaté moom nag moo jiite woon xeer bu njëkk bi nga xam ne ñu ko teg ci benn maakaan mi nekk ci Farato foofu nag mu nekkoon ab euh, toolu former président Jammeh ne nañ foofu la ñuy samp benn tabax boo xam ne bépp mbalit bi ñuy jëlee ci lopitaan yi ci réew mi nag foofu lañ koy daal di euh, sànne waaye nag su ko defee nag ñu koy toppatoo foofa daal di caa moo fa teewuloon ñu teewlu ko si xibaar bi mu andi jëwriñ gun dénk wàllum paj mi fii ci biir réew mi nag daal di ñu rek ngénte ab bërëb boo xam ne dañ ko daal di tuddee li nga xamante nag mooy clinical waste treatment maanaam bërëb bi nga xamante nag bagage yi nit ñi di jëfandikoo ci lopitaan bi euh, su ko defee rek daal di am fu ñu koy dajale maa leen mbalit bi nga xamante nag lii di docteur yi si bopp dañ koy jëfandikoo ñi xam si matuwaay yi nga xamante nag dinañ ko ci sànni wala itam nag ko defaraat li nga xamante nag mooy loolu su ko defee du daal di indi ab loraange ci ñi yëngatu ci wàllum paj mi fii ci biir réew mi rawatina doomu aadama yi nga xamante nag ñoo ko jëfandikoo ba tax na nag ministre of health si sañi bopp foofa ca faaraato leen daal di li nga xamante nag mooy ab machine boo xam ne dina daal leen dimbale ci li nga xamante nag mooy clinical waste treatment boobaa ba tax na nag foofa ca faaraato daal dañ defee machine boobu nag dina leen jàppale pour setal wa itam sax seetaat li nga xamante nag mooy tëdd ni bagage yi nga xamante ne kër docteur daal di ko rek jëfandikoo su ko defee rek disinfection a a askan gi mu ne ci ndaje bi nga xamante nag defoon ni ki semaine bi passé rek pour daal di ngénte li ni mel foofa ca faaraato alkaalo bi sax daal di woon na dem foofa waaye itam nag li nga xamante nag mooy dépense bi lépp rek daal di war a mun a jël li nga xamante nag mooy équipement boobu di machine booba su ko mot koo mën a jëfandikoo fii ci biir réew mi mu ngi jóge ko ci World Bank ba tax na nag seen représentative bi maanaam ku leen fi tookal nga xamante nag mooy sañu ndimbal di ko eggale Gambie mu ne su ko defee rek ñu daal di xeex li nga xamante nag mooy ay jàngoro li nag dépense bi mu ngi fàkkee ci ñi nga xamante nag ñooy World Bank ba lu toll ci 37 millions dalasis daal dina daal di dugg ci li nga xamante nag mooy machine booba su ko defee ñu daal di ko jëfandikoo Dado Thiam Star TV moo koy lu aju ci wàllu dund gi ci réewu Gambia gambien si nag ñu ngi si wax seen i eh, njaaxare doon mbir boo xam ne weeru ko coowoo eh, tana nag ba ministre bi ñu dénk wàllu li di njaay mi ci réew Gambia di Sidi Keita génn si na bés ni ki démba mu am dialogue bu nga xam ne am na ko taskati xibaar yi foofu nag mu andi si ay leeral si li jëm ci wàllu eh, njëg bi nga xam ne nag ñu ngi koy jaay ay bagage nag ci marché bi ak seeraayo li di marché bi Seydou Camara moo fa teewlu woon moo fa teew woon ñu déglu ko si bi mu andi ci jafe-jafe yu mbas mi indi ci wàllu defar ak yóndee bi nga xamante ne moom lañ doon gis mu aju ci wàllu dund bi waral na ba jamono ji dund seer na fii ci biir réewu Gambia buñ sukkandekoo ci gis-gis bi nga xamante ne rek jot nañ koy am ci mbir mile waaye ci jamono ji nga xamante ne askan wi ñu ngi dund lu métti ci wàllu dund bi fii ci biir réew mi ci yooyee jamono nag gis nañ ne mel na ni duñ gaaw a saafaral jafe-jafe yi nga xamante ne moom moo waral seer bu dund bi seer ci réew mi seer bu ñu nemmeeku ci wàll dund bi nag moo waral gën cee bari ci Gambien yi am jafe-jafe pour am li nga xamante rek moom la ñuy dundee ñoom ak seeni njaboot yi. waaye tamit ci jamono ji nga xamante ne ni ñenn ci askan wi ñu ngi ci mbedd mi di dund lu métti pour am li nga xamante ne moom la ñuy yóbbu seen i kër yi jëwriñ bu dënk lu aju ci wàllub njënd ak njaay mi génn si na nag oote press conference jàkkaaroog taskatu xibaar yi wax nag lan la nguur gi jàngat ci jafe-jafe yi nga xamante rek moom la ñuy dund ci dund yu ñu yokk ci biir réew mi dund yu si mel ni maaro sukur foriñ pataat ak yeneen yu nu mel yépp yokk na fii ci biir réew mi waaye nag dañ gis ne dafa gën a yokk ci jamonoy weeru koor wi nga xamante ne moom lañ tàmbali ci réew mi waral na néew gi doole ji mënuñoo yóbbu li nga xamante ne moom la ñuy dundee ci seeni kër yi jëwriñ buñ dënk lu aju ci wàllu njënd meeg njaay mi mu di siidi Keita xamal na taskatu xibaar yi ne nag nguuru réew mi xamoon nañ jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañu nekk di dund ci wàllu bagage yu seer yi waaye loolu nag jàpp na ne lu aju ci wàllu mbas mi mu di Covid 19 bi moom moo ko waral ndax Covid 19 bi dafa am jafe-jafe yi nga xamante ne moom la indi ci wàllu fi ñuy jëlee dund yi ak niñ koy defaree ci réew yooyu. moom joorin bi sax mu konte di xamle ne loolu moo waral dund bi seer te seer bu dund bi seer nag moo waral ñi nga xamante ne seeni loxo jotil ginnaaw ñu am jafe-jafe pour am dund bu ñuy yóbbu ci seeni kër yi. moom joorin bi sax mu continuer di xamle ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk finance ministre bi muy bunt bu yore lu aju ci wàllu dépense réew mi yokkuñ tax yi nga xamante ne moom la ñuy laaj ci dund yu ñuy dugal fii ci biir réew mi waaye tamit indiwuñ tax yu bees ci li nga xamante ne rek moom moo nekk dund yu ñuy dugal ci biir réew mi. moom joorin bi sax wax na ne du am benn loi bi nga xamante ne dinañ ko jëfandikoo pour saafaral jafe-jafe yi ñuy dund ci bagage yu seer yi nekk ci biir réew mi ci jamono nag gën cee bari ci Gambien yi lii la ñuy joytu ne bagage yi seer nañ lool ci marché réew mi Seydou Camara Star TV News fii sabilillah association doon benn mbootaay boo xam ne dañuy jokka pour jàppale néew di doole gi nekk fële ca Bundung bés ni ki samedi bi ñoom ñoo daal di togg ay ndogu nag daal di koy àggee ñi nga i gox gi ñi nga xam ne nag ay néew ñu mën a jëfandikoo loolu ku nekk da a sóoraale sa ah, dëkkandoo te loolu nag ko doon def bés ah, ci xibaar boobu mu andi ci yaatal fii sabilillah association nag ñoo defar ndogu bu riis daal di ko àggee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk askan wi dëkkee foofa ca bundung te soxla ko lool pour ñu doge ko seeni koor ci weeru kooru yàlla wi ñu nekk bii moo nekk njëlbeeni yoon ñu gis nu nu mel di bàyyeekoo ci mbootaay bi mu di fii sabilillah association bi gannaaw bi nga xamante ne sos na niki at biñ weesu waral na kuy wax ci seen làmmiñ mu di public relation officer bi muy wuyoo ci Moussa Niang moom it gaar na ne ay kàddoom di xamle ne ngéneel yu bari moom moo nekk ci dimbali doomu aadama bi ci jamonoy weeru koor pour mu am li nga xamante ne moom la muy ndogoo bu buñ sukkandekoo ci kàdd yi lay bàyyeekoo ci Mr Niang mu ngi wone ne weeru koor wi nag buntu la pour ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy dimbale doomu aadama yi ndax weeru koor wi boo si dimbalee doomu aadama bi nag di nga am fay bi nga xamante ne ni ca yàlla lay bàyyeekoo te fay boobu dafa ànd ak xéewal yu bari président bu fi sabilillah association bi mu dee Landing faal moom it gaara ne dafa ay kàddoom di xamle ne ñu ngi sosu ci atum 2020 waaye depuis bu ñu sosoo nag am na liggéey yu bari yi nga xamante ne ni def nañ ko pour dimbale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk seen yëpp askan ndax bokk ci liggéey yi ñuy def nag mooy dimbale nit ñu feebar ñi seetal yenn ci béréb yi bokk na ci jumaa yi bàmmeel yi ak daara yi nekk ci réew mi moom Fall mu continuer sax di xamle ne am na ngéneel yu bëri nga xamante ne ni ñoom association bi mu di fii sabilillah association bi def nañ ko depuis ñu sosoo fii ci biir réew mi muy continuer di xamle ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne nekk waa Bundung ak ñi dëkkee ci Greater Serekunda bi ñoom ñëpp dañoo am ité lool ci association bi ndaxte dañuy jël as tuut suñu am ñu daal di ko dooleel association bi pour ñu mun a am koppar yi nga xamante ne moom lañ soxla pour dimbale ñi ko soxla. kansulo bu Bundung Six Johnson Ward mu di Souleymane Jammeh moom itamit teew na ci ndaje boobu muy wane am solo bi nga xamante ne moom la ndogu bi nu mel am solo. moom jaame nag muy xamle ne pour boole suñuy doole yi nag dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk néew gi doole gi surtout si jamonoy weeru koor wi loolu lu am solo la fii sabilillah association bi nag continué nañ sax gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk jiyaar yi KMC ci ndimbal bi nga xamante ne ñu ngi leen koy àggee Seydou Camara Star TV News. United Nations seen office bu euh, South South Corporation mooy déggoo boo xam ne nag am nañ ko ñoom neen seen biir euh, bés ni ki ñoom ñoo yëkkati lu mat euh, ñaar fukki ñaar téeméeri junne ci ay face mask ñu daal di koy àggee li nga xam ne nag moom mooy Banjul City Council mooy BCC si njitalu nga xam ne nag moom mooy Lord Mayor bu Banjul nag di moom kii di Rugi Malick Lo nee ne nag jot nañ ci li nga xam ne nag moom mooy di face mask yooya face mask bi nag ko daal di jox council bi nag pour ñu mun a jàpp si xeex bi nag ñu koy def jàngoro bi nga ne moom moo lembe àdduna ba képp nag rawatina li nga xam nag moom mooy di réew Gambie di coronavirus daadu caam ñii di South South Corporation ñoom nag di ab mbootaay bi nga xamante nag taxaw neen temm pour daal di xeex li nga xamante nag mooy jàngorob covid 19 bi lëmbee àdduna wër nga képp ba tax na nag ni ki tey daal di ñu yoo xam ne daal di ay fix max eh, ko teg ko ci loxo ñi nga xamante nag ñooy Banjul City Council soo defee ñi daal di ko tasaare fi nga xamante nag mooy ci réewum Gambie rawatina foofa ca Banjul soo defee ñi daal di xeex dàqalu li nga xamante nag mooy opp bi lëmbee àdduna wër nga képp bi le ba tax na nag moom meyo bi ci boppam nag di Rohey Malick Lowe daal di rek wone kon kontaanteem nag ah, a ci àdduna wërngër képp mu ne itamit nag li nga nag mooy mbir mi toogul rek pour xeex li di jàngoro covid 19 waaye dina yokkute yi nga xamante nag dinañ ko gën a yëkkati ah, fi nga xamante nag mooy Banjul eh, su ko defee daal di yokk tëdd ñu doomu aadama yi ci bërëb booba rawatina nag ci Afrique ak tamit ci réewum Gambia mu ne itamit nag ñoom di UNDP ñi ne daal di jokkaloo ak ñi nga xamante nag ñooy Banjul City Council su ko defee ñu gën a di seet naka la def pour gën booloo doon benn boole sañuy amam ak tamit li nga xamante nag rek mooy seen man-man pour jàppale lii di ay doomu adama fii ci biir réew mi Dado Thiam Star TV. mbokk yi ñu sant gërëm Dado Thiam ak Seydou Camara ci xibaar yi ci réew Gambie su ko defee dañuy jàll dem seeti ci xibaar bi te fañ koy tàmbalee mooy ci réew Mozambique. Mozambique lu mat euh, ñeent fukki junne ci ay nit euh, ñi nga xam ne nag wane ne dañoo daw seen kër yi fu mu toll ñu ngi ut fa ñooy làqu ñi ndax nag ñëpp soxla nañ ab euh, ndimbal bu aju bi si ñam yi nga xam ne nag war nañ koy dundee ndax nag liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon def nag ci benn gaz compagnie wane ne daal liggéey boobu nag fu mu toll nii dañ ko daal di te nag ñu ne am na ñu xam ne nag ñàkk nañ seen i bakkan si nga xam ne nag ñu ko doon def ci benn dëkk bi ñoo Palma waaye nag mënuñoo xayma sax lim mi nag naka la toll si ñi nga xam ne jot nañuy wàññeeku ñu ne nag yàq-yàq bi nga xam ne nag rebelle yi def nañ ko ci dëkk bi nga xam ne nag ñu ko ooyee euh, Palma ñu ne boobu ba léegi nag ñu ngi koy xayma waaye xamuñ naka la toll ñu ne nag ay ñeenti semaine ci ginnaaw rebelle yi amoon na ñetti attaque nga xam ne nag dañ koo daal di defandoor ci benn béréb mu am juróomi fan def Mozambique nag seen police ñu ne nag ak relief agency si ay mbootaay ñoom yëpp dañoo jóg pour jàppale ay junne junne nit ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe nag ci lii di euh, fitna yooyu ñu ne nag xeex nag fu mu toll nii amaana jeex na de waaye nag Palma doon na béréb boo xam ne ba léegi wóoluwuñ seen kaaraanga bi nga xam ne nag moom la gars yi dikkee foofu parce que ñu ne rebelle yi ko defee nag ñoo jaare di daw na ñoo génn dëkk bi am ñoo xam ne si géej gi am ñoo xam ne nag ñoom ñi ko ñi am doole tuuti dañoo jaaree nag si jaww ji nag daal di génn lii di dëkk booba Palma nag ñu ne fu mu toll nii dañoo am jafe-jafe ci wàllu humanitarian crisis maanaam nit ñi ñoo am musiba musiba bi nga xam ne nag dafa aju ci wàllu seen i euh, dundin ak itamit nag seen i dëkki ndaxte lu ëpp ñu juróom-ñaari téeméeri junne ci ay nit wane ne ñoom ñoo daw dem uti ji fi ñuy làkk maanaam génn seen i kër yi daw dem lu ëpp ñaari junne juróom-benni téeméer ñoom ñoo ñàkk seen i nag euh, ci rebelle yi ci attaques yi nga xam ne nag ñu ko attaque gars yi euh, comme ni ko BBC wérale moo koy benn tey dinañ dem seeti ji rek beneen xibaar bu aju ci wàllu li nga xam ne nag moom mooy ñii di Niger Niger nag ñii di Tchad di jégalu caat naka tey ji dañoo yeewoo ak uh, nakar parce que nag seen kilifa bi doon uh, koo xam ne nag kooku moo jiite woon seen réew mi di président Idrissa Déby nag ñu ne kooku moo daal di wàññeeku Idrissa Déby nag ñu ne ko jiite li di caat ñu ne moom moo ñàkk bakkanam ci xeex bi nga xam ne mu ngi dos ci digganteem ak rebelle yi nga xam ne ñoom ñoo bañ nguuram bi te doo ko doon xeex ci at yi yëpp weesu ñu ne nag uh, xibaar boobu ñu ko gaaree nag mooy militaire yi announcement bi nag ñu ne ñu ngi ko def daanaka ay fan gannaaw nag bu electoral commission bi lii di euh, Tchad wanee daal moom kii Idrissa Déby moom moo am ndam ci élection bi nga xam ne nag ñu ko defoon ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu ne te loolu nag si élection boobu gannaaw bu ñu si amee ndam yaakaaroon ne dina jiite waa li réew di di euh, Tchad lu mat juróom-benni at maanaam mandaa bi daal juróom-benni at la

fukki weer ak juróom-ñetta si la koy jiite doomam bi nag wane ne mu ngi toll si fanweeri at ak juróom-ñaar mu ngi tudd nag Mahamad Idrissa Déby kooku mooy jiite lii di soldat te ñu ne foofu la si nag coffee bi ngoon ñëpp nag dañuy dugg seen kër yi nag njël nag comme ni ko xibaar yi wérale mbokk yi mu nekkoon suñu mujj deli xibaar en tout cas maa leen ko doon àggee Basiru Sàlla moo nekk ci euh, caméra bi Aliou Tunkara Mbay Mbuub ñooy nekk ci machine bi daalo